fekk. mais parce que bu. pourquoi waruñu ko am. mais bu 1000 milliards la ñu génnee. non génne presque 69 milliards pour jox leen ko pour ñu lekk ci. oui mais maintenant lekk ñaari weer ak lekk at du benn kenn xamul fi mbas mi di yem xam nga il faut nga comprendre loolu kenn xamul fi mbas mi di yem. donc maintenant c'est des analyses un président de la république il arbitre. waaw mais xaalis bi ñu génne woon yëpp pour la pour léegi léegi léegi pour lan. léegi nit ñi génn nañ si léegi fan lay mujj léegi ñaari weer ñetti weer yi nga xam ne toogoon nañ kenn deful dara naka lañ doon dundee boo amuloon dara sa kër te lu bett nit ñi la il faut avoir plusieurs approches déconfinement bi ngay dégg Europe mais parce que état yi xam nañu mënatuñ supporter yow nga ne da ngay doo nangoo nit ñi chômer wala ku chômer nga fay ko 70 pour cent de li mu doon fayee ko yow boo amul ressource foo koy fayee boo amatul sa foy lef foo koy fayee donc il faut qu'on soit lucide et qu'on analyse le problème mooy il faut apprendre maintenant il faut apprendre à vivre avec le virus mooy lan ñun ñëpp dañu war a respecter gestes barrières yi te loolu dafa am solo premièrement deuxièmement il faut que nga relancer sa koomu réew mënul nekk benn réew ci àdduna bi du nangu tëju Chine bi nga xam ne moo ko def sax ñemewu ko continuer te ñëpp xam nañ sax état démocratie Chine mais tey boo toogee nga gis réew bu nga xam ne comme ay suñu ay réew yii li am solo mooy boo toogee ba ay sa ay naataangoo yi nga xam ne dañ foogoon ñoo ñu ëpp matuwaay ñu ñëw ba suñu réew di naan naka la ñu def ba mun gérer suñu ay système prévention ak suñu système prophylaxie pour faj donc loolu premièrement prise en charge boobu deuxièmement il faut aussi sauver les activités essentielles d'un État njàng mi il faut que ñu sauver ko lu tax mooy boo xoolee chaque pays s'est adapté di nga gis ay réew yi nga xam dañ leen naan léegi duñ def examen bi mais dinañ jël en compte les contrôles continus on peut pas sacrifier une génération comme ça à nouveau dinañ teg benn année blanche donc nga organiser ko te pourtant yaa ngi fàttaliku bi ñu koy wax dañu foogoon ni l'école allait être le cadre idéal pour que mbas mi tas si dëkk bi foogoon nañ ni matuwaay yi amul mais déggatoo benn coow ci affaire boobu avant muy ñëw lu ne dégg nañ ko fi mais aujourd'hui toutes les écoles quatre mois après ngay doog a réfléchir pour ni bon nii laa war a defee war a def lii quatre mois après. sa waay il faut savoir s'arrêter bu la dara dalee xamoo ko ba dama mel ni nga doon dox ci àll rek buñ la pesee wallaay di nga taxaw xam lan moo la pes ba pare balaa ngay sax jéem a moytu. yaa ngi comprendre mbas mi ñëw na kenn xamul woon luy mbas mi ak naka lay xoolal tey semaine bi débat bi mooy ñu ne mun nañ ko air bi dana ko mun wàlle chaque jour yaa ngi découvrir lu bees xamoon na ñuy doxale li am solo mooy nga am ay protocole de traitement yiy permettre soit une prise en charge dans les centres médicaux soit une prise en charge à yooyu la ñu changé léegi soo ko xoolee exemple bi mooy test yi. 1000 tests nga daan dégg léegi ñu ngi ci ay ay 100 tests la ñuy dem. non ah. non bien sûr yooyu tam xanaa suivre l'affaire yi grand ah, ah. ay ay 100 tests la ñuy def. ay sans test. non il faut pas cest léegi stratégie bi lan la dañu bëgg a dem pour génn ci génn ci prise en charge bi ku nekk demal sa bopp ku nekk xam fan nga mën a fajoo ku nekk toog sa kër ñu. voilà quoi jéem a xool nan ngay def feebar bu nga xam ne ñu ngi lay naan 50 pour cent des cas asymptomatiques feebar bu nga xam ne dañ lay pour cent des cas sont asymptomatiques maanaam nit ki dina dox. am ko ba mu mhm. dañ dafa dafa dafa dafa xaw doy waar ci démarche prévention la ñuy wax de prévention feebar bu nga xam ne mën na la dal. nga nga yëg ko tuuti mais du la def dara du gàllankoor dala ci sa sa sa dund mhm. beneen aspect maintenant mu am ci ñi nga xam ne dañu graaw il faut que nga def ségrégation ñi nga xam ne mën nañ ko dëkku toog seen kër nga fajee leen seen kër jox leen protocole de traitement ñi nga xam ne nag ils sont en danger parce que dañu am ay yeneen pathologie yooyu nga mun leen gérer mais en même temps xam nga bi président di jël en en charge cette question la dafa am benn aspect bu am solo bu mu wax mooy mettre l'humain au cœur des politiques publiques te loolu ñu ngi koy ñun sénégalais jëlaguñu dimension bi mu bëgg jël président aujourd'hui tout de suite moom mooy le porte-parole de la cause africaine sur la dette sur la jeunesse et sur les régimes qu'il faut mettre en place du point les politiques économiques man dimension boobu moom may moo may rassurer sur les projections futures parce que xam nga crise dafa mel ni feebar rek soit nga dee ci soit mu rey la soit ngeen dundandoo mais ñaari hypothèse yi mujj yi il faut que nga xam noo ciy tirer bénéfice. mi mhm. ngi ciy tirer bénéfice mooy ñun toog nañ di def ay infrastructures yu am solo bi am ay politique publique yi nga xam ne dafa dafa dafa dafa am ay vision yu claire mhm. mais lii ñëw. nga gis ay réew yi nga xam ne li ñu amoon ci ay ah, poste assistance respiratoires dafa bari woon ñu jékki-jékki dindi ko parce que c'est des questions budgétaires amul woon njëriñ bas mi ñëw ñu soxla ko. Mhm. xam nga donc il faut que nga nangu investir en matière d'éducation de santé. même bu dee. askan wi soxlawu ko ci saa si te loolu c' une des pistes de réflexion essentielle bi nga xam ne président Macky Sall dévoilé na ko mooy il faut que ñu investir pour créer benn plateau médical ci réew mi yëpp bu am solo. bi nga xam ne même bu dee. crise bi jeex loolu loolu waroon xaar crise bi waxuma la loolu. loolu loolu non euh, fonctionnement non xam nga xam nga directeur. loolu loolu dafay wone vraiment nga baal ma mais lajj boo xam ni lajj ngeen ko. Ah, no non attends non euh, firnde yi dafa bëri firnde yi dafa bëri. autosuffisance ci ceeb buñ ko amoon duñ ko dem jëndi bitim réew am na li ngay wax ni ci plateau médical bu élevé woon wala mu yàgg fenn fi jafe-jafe yi ñu am duñ ko am te vraiment état loolu lañ ko doon doyee président de la république bu muy ñëw en 2012 dañoo jàppoon ni loolu da koy réglé donc réglé wu ko lii wane na ni. amul non non non non xoolal bul ma wax France Sénégal laa lay wax. ma lay wax ma nit c'est-à-dire situation exceptionnelle mesure exceptionnelle réew dafa am nu muy doxee normal lii phénomène bu bees la bu kenn maîtriser wul réew bu nga xam ne soxlawul trente postes d'assistance respiratoire gisuma ban njëriñ la am muy ci am cinq mille mbas mi moo tax ñu. soxla ko 5000 non je te dama am ci le minimum waxuma nga am ci waxuma nga am ci 5000. il a un pays qui avait 5000 100000 100000 postes d'assistance ah, respiratoire mais c'était inutile parce que amuñu woon mbas bu mel nii ñu dese 5000 mbas bi bu mu ñëwee ñu jaaxle mais tey doo gisuma njëriñu. Euh, tabax non si il faut que nga comprendre c'est-à-dire tey jii xam nga on fait face à des pathologies plus graves ay paludisme lu muy rey ci réew mi kenn xamul nu mu toll. tellement dafa bëri donc yow sa ay stratégie yaa ngi koy def ci li nga xam ne mooy gën a gàllankoor wér-gu-yaramu askanu Sénégal léegi lii lu bees la lii dafa tax recherche dina di nga ko gis c'est-à-dire euh, crise boo gis il faut nga jàng ci dina am processus bu bees ci adaptation pour wàllu recherche ak wàllu technologie ak innovation bi nga xam ne réew yëpp a koy am parce que ku ne léegi dina fagaru dina parce que expert yaa ngi lay naan lii presque fukki at bu ne wala fukki at juróom bu ne dina mun am ci réew ci àdduna bi donc ku ne dina fagaru ji donc on va remettre l'humain maintenant en même temps aussi on se bat pour des causes mooy comme la la la la la lutte pour euh, ñu dindi bor bi nga xam ne réewu Afrique yi am nañ ko xam nga ak yeneen ak yeneen donc cette projection la elle est fondamentale léegi crise bi jeexagul moom njiitu réew mu ngi toog di xalaat relance économique d'accord relance boobu donc kon xam ngeen ni crise bi jeexagul mais crise bi mënul jeex jeexul fenn ci àdduna bi tubaab yaa lay naan deuxième vague Mm-hmm. mu ngi heure bi agagul pic Brésil non crise bi non comme xam ngeen ni crise bi jeexagul alors que décision yi ngeen jëloon pour crise bi ngeen génn ci mais loolu mooy loolu mooy li paradoxal la partie médicale la partie médicale elle est quotidienne le suivi il est quotidien loolu ñi ko war a def man jànguma ko ay médecins lañu ak ay infirmiers ak yooyu. mais nañu ko doon defee sax defeetuñ ko noonu ñoom nañu ko doon defee ñoom defeetuñ ko noonu. parce que suivi boobu ni ñu ko doon defee defeetuñ ko noonu. ñoom ci seen i xam-xam. test yooyu ni ñu ko doon defee defeetuñ ko noonu parce que mun nañ jël en charge cas nga xam ne dañoo grave yeneen ñi mun nga am benn protocole de traitement bu nga xam ne nit bi c'est vrai que dina indi gàllankoor ci nit ci wér-gu-yaramam mais taxul nga nga taxawloo sa réew yëpp parce que leen loolu mun na indi ay gàllankoor am solo. Mhm. mais kon xam ngeen ni ñi ngi ci euh, crise bi jeexagul wax nga léegi itam ni euh, war nañu taxaw ba lépp loo xam ni ci wàllu santé war nañ ci mën a évoluer ñu évoluer ci ba lu mel nii dootuñu dalati donc man jàpp naa ni loolu moo nekkoon vision gouverner c'est euh, mooy am vision. soo amul vision lii moo lay dal lu dul lii mën na la dal ci leneen ëllëg mën na la dal ci géej gi ah parce que géej gi ku nekk mi ngi dégg soppeeku yi am ci wàllu climat ëllëg mën na la ci dal mën na la dal ci leneen ah donc soo ko waajalul préparé wuloo ko après nga ni non daf ma bett mënu ma ci dara mais loolu du gouverne loolu du gouvernance loolu du gouvernement jaww kon kon adduna bi kenn gouverné wul de ah non mais waxuma loolu ah si crise bi mu ñëwee amul benn njiit bu jël décision bu nga xam ne génneew ko ci ëllëg sax amul bu met defi mais naa la phénomène bu bees approche bu bees lii dafa di li nga xam ne musuñu ko xalaat ci àdduna waxuma la Sénégal de ci àdduna crise bu mel nii mais mun na am sax lu gën a garaaw am ëllëg parce que mun naa am xëy na beneen feebar judd bi nga xam ne ku ko nooyi sax nga dee kenn xamul donc loolu laa lay moo tax man la léegi approche yi day ute parce que lii dafa yee àdduna ci lu bëri ñu bëri dañ doon def ay économie budgétaire ci ay postes yu nga xam ne pour ñoom Euh, vraiment euh, puisque amul woon crise yu mag crise sanitaire yu mag amul woon aajowul woon ñu koy am ci seen i dëkk lii daf ñu yee ñun ñëpp adduna bi yëpp la yee d'accord nañ ñaan yàlla ñu génn ci mais ci diggante bi il faut ñu dund il faut ñu liggéey pour génn ci président dafa jàpp ni mbay moo ñu ci gën a mën a génne euh, croissance bi ku nekk xam na ni fa mu jóge woon ak fi mu daanu am na différence lool parce que daanaka yaa ngi doon egg ci set Euh, tey daanaka sa deux matul euh, mu jàpp ni est-ce que ni ñu waajalee mbay mi ak ni ñu yéexee euh, génn ci li nga xam ne mooy semi confinement bi est que loolu mënul indi aussi jafe-jafe ci li nga xam ne moom mooy nawet bi nga xam ne dëgmal nañu ko. nawet bi li ñuy njëkk am ñaan mooy suñu borom ñu taw. ndax mu bëri. mais yàlla yàlla bay sa toll aussi. waaw li yàlla yàlla bay sa tool aussi loolu laa lay wax cest à mhm. bu ñu toogoon di wax ni. Euh, semence yeeg matériel agricole eggul woon di nga xam ne ñun ñu ngi doon toppatoo mbas mi fàtte suñu mbokk yi nga xam ne ñooy béykat yi. dafa am solo ci approche anticipation bi. Mhm. tey malgré la crise malgré parce que crise bi mu ñu fekk ci jamono yi nga xam ne mois de mars la commencé dugg ci réew mi avril la ñuy préparer campagne agricole ci réew mi. Mhm. parce que suñu mbokk yi boo demoon ay Kolda wala ay Tamba avril commencé nañ di dem ci seen i tool di ko defar. Mhm. donc yow heure boobu ñoom ñu ngi séntu li nga xam ne mooy euh, matuwaay yi nga xam ne dina tax ba ñu béy ba ñu kon bu ñu xaaroon anticiper wuñu ci crise euh, ci ci ci ci ci saison agricole bi dañ doon am ay jafe-jafe tey. Mhm. léegi heure bi vraiment yàlla def na li ci war. def nañ ko ñu ñaan yàlla taw ñëw bu boobaa di nga xam ndax préparer nañ ko nu mu waree wala déet ci diggante bi tamit li am solo mooy suñu mbokk nappkat yi suñu mbokk sàmmkat yi ku ne luñ leen waroon a gungee ñu gunge leen mais ñun ba léegi dañoo dese jàngat tuuti si suñu réew. Mm-hmm. ndax bi crise bi amee dafa am secteur bu nga xam ne dimbali na Sénégal ci lu bëri mooy artisanat. artisanat ñoo doon defar masque mhm. artisanat ñoo doon defar mhm. après sax gel peut-être mën nga wax leneen mais matuwaay yu bëri yi nga xam tey kaaraange doomu Sénégal yi euh, soxla woon nañ ko pour xeex mbas bi ay sénégalais ñoo ko liggéey. Mhm. te donc loolu bu ñu bu ñu bu ñu réfléchiroon waroon nañ mun xam ne am nañu ay potentiel yi nga xam ne ba léegi. bu ñu réfléchiroon bu ñu leen gunge waaw non non non xam nga crise moo lay c' est des y' a des révélations qui se font. Euh, bu ñu réfléchiroon non non non c' est des révélations xam nga xam nga encore une fois je n'aime pas prendre exemple ñu foog ni ñun France et cetera mais réew yu bëri amatuñu woon masque. Chine yow dégg nga sax ñu ne la ci aéroport bi avion bu taxaw kenn ñëw fay lu ëpp pour jënd ko donc. mais nga xool le génie sénégalais qui a pu nous faire des masques qui aujourd'hui moom ngay gën a gis cest à moom ngay gën a gis que suñu masques yi nga nga nga nga gis yi ñuy jaay ci pharmacie yi yu demee noonu donc il y beaucoup de de révélations yi nga xam ne normalement bu ñuy génn ci crise bi war nañ profité di accompagner secteurs yi avec beaucoup plus d'énergie mhm. xëy na sax créer ay cadres yi nga xam ne dina permettre ay qualifications yu bëri parce que bon artisanat dañ koy wax rek mais boo gisee ñu leen di insérer. pourtant ah. pourtant tutelle yaa ngi fi ah formation ak artisanat tutelle yaa ngi fi. tutelle yi ngi fi non mais li ñu ci def donc fi nekk noonu rek quoi non li ñu doon jëf ay jéego yu am solo parce que qualification certification ci jamono Macky Sall nga ko dégg. Mhm. n'est-ce pas mais dama ne dañu war a sukkandiku davantage sur des secteur comme ça. Mhm. parce que secteurs yooyu ñoo révélé wu. ci crise bi secteur yooyu xëy na bu ñu gungeewul woon malgré effort yi nga xam ne kër docteur ñu ngi ko doon def duñ doon génn ci crise bi hmm. ndax bu dee masque mënuñ ko woon jëlee bitim réew indi ko fii te doomu Sénégal yi mënuñ woon defar ay masque dina doon doy waar hmm. te donc defar nañ ko dans des conditions yi nga xam ne xam nga ni déjà toogoon nañ presque ñoom weer wala weer a genn wala liggéeyuñu mais commande bi ñëw ñu liggéey ko ministère bi nga xam ne moo yor surtout wàllu wàllu secteur boobu gungee ci li jëm ci ay commandes publique dafa rassurer sur le génie sénégalais na ñu profité ci crise bi jàngat ci lu bëri xam ni am na ay doomu Sénégal yi nga xam ne yàlla wërsëkal na leen xam-xam wala doole pour ci li ñuy liggéey ñu gunge leen ñu gunge encore une fois le secteur primaire ñooñu ñooy doomu Sénégal yu gën a am solo ci mhm. boo compté ci xayma mhm. mbaykat baykat sàmmkat nappkat kii nga xam ne maçon la menuisier la ouvrier la tailleur la mhm. ñooñu bu ñu leen xëy bu ñu leen organiser. Mhm. li ñuy woowee classe moyenne sénégalaise dina du jóge ci ay salariés. Mhm. dina jóge ci secteur yooyu. d'accord mais ak lu mën a am itam ku ne xam na ni xaalis bu bari lañ ci lañ ci def ci plan de résilience bi euh, ku ne xam na ni par exemple muy ci muy ci santé. plus de lu jóge 64 milliards daanaka dem na ci euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, kit alimentaire yi presque 69 milliards dem na ci ak yeneen yoo xam ne ay secteurs la ñu génneel leen ku ci ne xaalis pour jox la ko loolu nag dafa laaj transparence dafa laaj loolu jaar ci yoon. dafa laaj mu leer. gis nga leer weesuwul nga teg ñetti commission yu koy gérer benn bi nga xam ne bi nga xam ne ministre bi yor wàllu finance ko diriger ministre Abdoulaye Daouda Diallo beneen bi nga xam ne jël nga général François Ndiaye mu diriger ko loolu yëpp ci processus bu clair mais euh, xam nga xam nga pertinence su 1000 milliards yi il faut nga analyser ko parce que déjà président dafa jël mesure bu forte ne. secteur privé sénégalais nanguwuma ngeen dàq doomu Sénégal bu doon liggéeyee ci yéen mhm. léegi nit bu doon def chiffre d'affaires u cent millions ñu ne léegi zéro lay def si chiffre d'affaires nga ne ko bul dàq sa sa ay employé boo leen gungeewul employé dañuy nekk dañuy am bor ci capitalu entreprise bi parce que boo fayul nit ki salaire bu demoon di la di la poursuivre pour nga fay ko par force mun na saisir ci yan critère lañ ci bénéficier wu loolu aussi c'est important maanaam waaw ci yan critère lañu ah, ci xam nga dañoo identifier secteur xam nga tey tey tey par exemple boo jëlee ci wàllu secteur aéronautique li ñu waroon gungee benn fleuron bi nga xam ne yàlla mu ngi ko doon mu ngi ñu ko doon jox mooy Air Sénégal il était pertinent que moom mu mu defoon benn plan de développement stratégique waroon sax jënd yeneen ay avions yu bees taxaw mu nekkoon ci période bi nga xam ne xëy heure bi la waroon jël envolam parce que ñu ngi doon dugg ci été bi. Mhm. xam nga euh, commencé woon expérimenter yeneen destination mu taxaw il faut gunge Euh, ñiy liggéey ci secteur aéroportuaire bi ak ñi doon liggéey aussi ci wàllu euh, dem ak dikk bi ci wàllu àdduna mhm. donc ñooñu il fallait nga gunge leen les hôtels les restaurants ñooñu nga xam ne justement leur personnel da nga leen bëgg a maintenir te amatuñu woon parce que tëjoon nga hôtel yi à la limite parfois sax da nga leen doon euh, réquisitionné fallait aussi nga créer benn fonds mhm. gunge leen nga créer leen ay fonds yi nga xam ne ku ci bëggoon it pour continuer tamit ci sa ay activité wala sa ay investissement amoon nga benn fonds bu nga xam ne dala doon gunge ci loolu tout ça ce de des mesures pertinentes yi nga xam ne dafay tax ba résilience mooy ni ñuy dëkkoo euh, mbas mi dinañ ko doon mun dëkkoo ci xel mu dal parce que su doon leneen boo bu ngeen di dégg dans beaucoup de pays dégg ngeen ñaata ay junni junni entreprise dañoo tëj wala ay millions ay millions millions de chômeurs. ñun ñu dëkku ko. Mhm. état bi jël ci wàllam mais état bi tamit lu mu jàmbaar jàmbaar jàmbaar bu amul recette du ko mën. te day lebe bu lebee mu gën a nekk sunu musiba. donc il fallait que ñu créer condition pour relance économique am. te yaakaar bu lebiwul nu mu koy defee. mais du ko am loolu laa lay bu ko amul. bu lebiwul amul pexe. waaw non heure bi parce que bu dee non bu dee activité amul du il faut mu lebi mais bu dee activité am na moom dina am ay ressources am parce que tey jii euh, sunu autonomie budgétaire mu ngi toll presque ci 60 pour cent bu dee réew mi mu ngi dox normalement. Mhm. mais bu doxul kon bu ñu amatul ay recettes douanières wala recette fiscale mais nu ñu def tey il ñu dund. Mhm. voilà d' accord mais plan de résilience boobu mbaa du nekk plan wu troisième mandat. la nga amu ci voilà quoi dëkk bi fii la nangam nangam la nga amu ci troisième mandat. parce pense que loolu moom xëy na xel mënu ko xalaat. Pape il faut pas mettre l'accessoire le principal aujourd'hui suñu réew dafa nekk en crise dañ koy sàggane parce que yàlla suturaal nañu xam nga. damay bañ ñu dem ci beneen crise rek dañu dem crise politique benn crise si damay bañ ñu dem ci beneen crise muy crise politique dama bañ plan bi nekk beneen plan boo xam ni dafay. dafay indi plan wu PS rek parce que PS horizon 2035 la ça règle le problème. te ñun référentiel politique publique bi ñu am. lan nga bëgg wax ci plan déedéet da nga ne est-ce que plan bi du nekk plan wu leneen ma ne la bu dee loolu la rek bu dee ay at nga bëgg a compter jëlal e, parce que boobu horizon 2035 la mais bi plan de résilience dañ koy génn dugg plan de relance il faut que ñu relancer suñu koom réew il faut ñu relancer suñu ay secteurs d'activité yu ne loolu te xam naa ne c'était euh, benn timing bu sérieux la bu nga xam ne certainement di ngeen ci gis beneen implication njiitu réew mi parce que il faut que mu diriger lu mel noonu joxe orientation yi mais nag président Macky Sall du def li Talla la doon tooñee sama papa Ablaye Wade moom du dem marché dugg xool li soble togg et donc mm. il va s'arrêter aux idées aux orientations kon aussi du def li ñu doon tooñee Abdoulaye Wade wax waxet non non non du def li ñu doon tooñee président Abdoulaye Wade muy wax waxet bu defee orientation yu am solo yi. ah d'accord boo paree ci bu defee orientation yu am solo mm-hmm. il faut que chaque ministre aussi. Mm-hmm. jël son envol expliquer naka la secteur am avec des outils de planification précis et je pense que c'est vers ça qu'on va. pour wax ni par exemple secteur napp gi nii lañ fay demee secteur sàmm gi ak mbéy mi ak euh, artisanat ak yooyu donc c' sur cette base là qu'on va sortir de cette crise là donc ay plan ay ay deux mille euh, xaw ma ndax ay troisième ak yooyu c'est par le propos aujourd'hui nous sommes en crise nous devons travailler président dafa mus a sur le fait que ñu fal ngeen di wax ay waxu calendrier politique ñu liggéey li ñu liggéey te ci diggante bi bul fàtte ni beaucoup de gendarmes politiques qui arrivent élection locale yaa ngi ñëw te élection législative mooy jiitu élection présidentielle donc on a le temps de de d'aborder des questions comme ça mais ce qui est important mais, on a le temps mais lépp ci calendrier républicain bi la nekk bien sûr wax nga élection locale wax nga élection législative mais mën nañu wax élection présidentielle bu ñu waxee élection présidentielle forcément wax ci candidature